ngeen jot a jot moo leen vidéo boo yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér ak ay magam ak i rakkam ak i taalibe ak jullit yépp mu fab sama nuyoo bii joxal ma ko sama doomu turandoo Sidi Boubacar Sy xalif généralu Tijaan yi di nuyu bu baax maam Ousmane Sy ibnu alxaaji Habib nuyu ak ziar li ma waroon wax yépp ak ñu nu waroon gërëm yépp sama jarbaat Abdoul Aziz gërëm na leen sant na leen lii ma def rek sëñ Mansour rek moo tax ma def ko ngir yàlla ak sang ba ca Madinatul Munawwara ak sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ak njabootam yépp sëñ Abdou Aziz Al Amine moo ne woon nit kenn du ko xeebal bésam kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal sëriñam mbir bi fédération Seydi Mouhamadou Mansour moo ko waral di nuyu maam Alpha ak Habib ak sama jarbaat sama doom Habib ibnu Seydi Mouhamadou Mansour ak famille sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick yu fi nekk ñépp Seydi Mansour nag dama mënul tax xam lu bésam ngir baayam ñi fi wax ñépp di kiima dendal di sëtu Abdou Boori ak sëtu Alhaji Abdoul Aziz di Maxtaar ak professeur Jaxate ñoom ñépp yi nu wax ci diine ji ci lislaam bi wax yooyu yépp mu ngi ci sa baay Alhaji Abdoul Aziz man suur li tax ma ñëw si yaa tax tànk yi baaxul nag la waane nit ku ne dafa am lu xam ni ku ko defal waroo toog xam lu dara am loo wax Abdou Aziz Mam Faama ak daayire bi dem leen ca sama mag Alaaji suur su ubbee ba pare daayira bi soo ko wax loolu nag am na leen lu ko gën a rëy Macky Sall day ñëw Tiwaawan sëñ Babacar toog Aj Malick ibnu Seydi Boubacar toog ak famille bi yëpp nga tàllal ma loxo ma tàllal loxo ba yàgg nga wàcc ñëw ci suuf ni ma yow laay nuy si ndax sama conscience moom ma mayul dina tàllal loxo rek dama ñëw ba ci yow jox la loxo nga xam ni yaay sama mag doyul de yaram yi su ma nekk hôpital famille bi yëpp ñëw nunu yow te bu xuus ñëw ca booba mënoo ko sax ni ma dama ñeme ñu nu ni sa yaram sudante na ma toog ndakaaru walla ma toog Tiwaawan ci ñëwuma seet si la te sa baay alxaaji abdul aziz yal na yàlla yokk leeram moo wax ni wax nga ko keroog maxtaar kebe wax na ko sunu baay ba sunu sëriñ ba sunu xarit ba ne ku la bëgg na nga ko bëgg ku la sopp na nga ko sopp ku la sopp sax tey jullit fexeel ba sopp ko sa baay nag Sidi Boubacar si xalifa bu tedd ba sa baay daf ko seet si maam Alfa yaa ngi dégg sëñ Babacar ibnu Alhaji Abdoul yaa ngi dégg sa baay dafa seet Seydi Boubacar Sy magam ja xaritam ba soppeem ba sa baay man may toog ak sa yaay assukan Alhaji Abdou nuyoo ma siis ak ñoom mamaloo ak maa ña fa nekkoon ñëpp ñëw di déglu si waxtaanu sunu Sidi Boubacar ba mu laajee sa baay waa ndar ak magu ndar ya waxtaan ak moom ba mu dem mu ni aman mbay sam di ko si mu ko maa sopp alxaaji Abdoul Aziz sama papa ko lu tax sopp ko mu ko dafa nuru Cheikh Seydi El Hadji Malick ci lépp sa nag génération bii doon wax ak génération bi leen jiitu ku ci ne xam nga El Hadji Abdoul Aziz yàlla mayoon ko may gu xam ni waxuma ne moom rekk la ko may waaye réew su jaxasoo ba jaxasoo lu nuy def nan seeti lu Alaaji Abdul Asiis waxoon ci archive président Abdou Diouf woo ma ni ma nen sa papa Alaaji Abdul Asiis danaa ko seet si ma ñëw wax ko ko mun ko dara indiw ma de lu dul rekk jàq Sénégal yëpp nangu may bind lettre gouverneur yi ak préfet yi responsable politique yi neen nu nawet bi dafa teg yi lu bari ci biir Sénégal ma bëggoon papa nga ñaan ci mun ko man de du ma yàlla du ma rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye daal fexeel ba jël wax ministre de l'intérieur mu jël benn arrêté ni ndakaaru gii ak fudul ndakaaru nan tëj yi nan làmb yi nan tëj simb yi yépp suñu ko tëjee nu tàllal loxo nag ki xam ne moom rek moo mën a maye muy yàlla Abdou Diouf moom de l'intérieur wax ko ko nu jël arrêté boobu noo ko jël altine talaata lu xew ku ne daw nga loo daw xiin wu rëy ak ngelaw lu rëy ñu tuuti mu boole kook taw kooku mooy alxaaji Abdul Aziz li Maxtaar Kebe doon wax ci alal ca Sëriñ Tijaan si mbër ni ku amagul xaalis amagoo daraja amagoo jukko sa moom rek moo tàllal loxoom ca jag saaw sa baay sooy doo ngi ak mu xàddee mi ak Sénégal yëpp booba Senghor fi ne ni ko yaa ngi yow Léopold Senghor man maa ngi alxaaji Abdoul Aziz sama loxo bi ma soo ci teg dara ma soo ma la laaj dara it lu ma bëgg mooy nga yërëm jullit yi rek sa baay sa sa sama turandoo cheikhul xaw mi inspecteur Cheikh Ahmed Tidiane ba daf daan wax ni Abdou mooy Cheikh Seydi El Hadji Malick rek ñëpp d'accord waaye Seydi Mansour lii am tey fii ku sotoo ci El Hadji Malick ak kuy muxaddam ak kuy taalibe ak sa kër waa mu Xaadimu ñoom ñëpp ñu dajaloo fi su jukko bopp ñoom ñëpp ñu daju fi sa yar sa teggin sa sa ragal yàlla fab sa tànk fekk sa baay tegoon moo tax ñëpp sopp la ñëpp bëgg la waaye nag jàngam ngeenu tey la sol gàmmu daal ñu bari daanu ko bàyyi li ñuy def lii xew tey jox surtout Abdou Bóodu bi jox Maxtaar jox professeur Jaxate ku ne am nga loo fi jële xanaa sëñ Babacar Mansour sëñ Babacar Alhaji Abdoul Aziz mu ngi tooñ nag ndax nee na dana am ñu mu questionné ñi muy question rek Abdou Aziz Mbaye ci la bokk <laughs> waaye si ku fi jóge tey am nga leçon bu bees fii laa yam ñaanal la ñaanal Seydi Mansour yàlla may la gudd fan yàlla may la wér di ñaanal sama jarbaat bi sama doom ji moom itam yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér sunu guddi gi guddi la gu xam ni ñun ñëpp bu ëllëgee ak bu gannaaw ëllëgee wala dans un an wala dans deux ans ñun ñëpp daanu koy waxtaane yaana ba mu nekk sunu mujj guddi Seydi Mansour yàlla yàlla may gudd fan yaag say mag ak say rak ak say taalibe ak jullit yëpp si nit ku ne sa bopp daf la jegeñ lool waaye ku ne jox ko cër sa baay alxaaji Abdoulaye Si moo ne woon xaw ma ne ku jël siwul seesam bi baayam toogoon ci kër gi waaye Abdou de du xañ kenn seesam yow ku am cër jox ko ba moo waral lii lii nag di ziar suuf si Ahmed bi toog léegi la coow li bari rek waaye Cheikh Tayyib bi fi njëkk ñëw di suuf si Ahmed Tijaan ba ko gouvernement bi ne bu gouvernement Maroc ànd ak gouverneur général ni ko wuti Sénégal mu ne damay gane ji kër Alaaji Malick lu mu def fii la wàcc sa bàyyi Sidiou Boubacar ko teeru ak Alaaji Mansour ak Alaaji Abdou ak Alaaji Habib ñu dalal ko kër Alaaji Assane Niang agent voyer takkusaan jot mu ne nañ ko jël si fu mu jëm mu ngi jëm zawiya sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick pour ànd ak ñun ci xadratul jumaat ñii ci toog ay maamam ak i ñoom xam nañu muqaddam bu rëy ba Cheikh Omar muqaddamu Cheikh Omar Fouti ba muqaddamu Alpha ki xam ni li mu def ki réew mi di si sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu kenn def lu mu def fa gouverneur du Sénégal nekkoon yilif ñëpp fa la sëpp sëb yëpp ak lan